am njàngat mu leer nàññi benn par benn moom leen leen bëgg indil ci ki nga xam ni mooy doomu Allemagne bi di Antonio Rudiger dugg si na ci biir meilleur club du monde ma nga noonu ngeen gis ko ci suuf ginnaaw ba nga xamee ni def na léegi di visite médicale ba tàllal loxob càmmoñ bi loxob dee la tàllal mooy lépp a ngi tolloo ok kon lépp jaar na yoon ci visite médicale bi mu génn foofu o dugg ca bureau ba nga xam ne fa la doon fëggee ab contrat boo xam ne ah, def na ko contrat boo xam ne yàgg nañ cee waxtaan ndax du sori andiloon nañ leen détails contrat bi ndax moom mooy mais ba muy jógee euh, fële di Chelsea dara euh, topp ko kon Real Madrid du am benn contrat boo xam ne moom lay teg ci taabal ji boo xam ni ñeel na ab xaalis waaye la ñuy def mooy euh, signe la nga xam ne moom lañ koy fay ci at mu ne maanaam weeru jot ba nu contrat bi jóge ci loolu dañuy avancé tuuti àndu génneel ko numéro ba nga xam ni moom la ko meilleur président du monde jox muy Florentino Perez luñ ca foloke vingt deux mooy ñaar fukki suyéer ak ñaar yi nga xam ni moom la war a euh, àndal buy football ca Santiago vingt 22 personnes la ñuy doon boo ci boolee góol yi kon 22 boobee la mu signifié euh, jox nañ ko ko wax nañ ko ko euh, sol na numéro 22 moom mi nga xam ni mooy Antonio Rudiger nga xam ni eh, gis na bànneexam eh, bànneex bi nga xam ni eh, moom ku indi Real Madrid ndax gone Barcelone yi ci biir waxam doon nan ko coytu di ko bëgg indi waaye assemble lam ko waxoon leer na dañuy jóge foofu avancé waat ci néeg yi nga xam ni wala bokk bureau yi nga xam ni moo nekk fële ci meilleur club du monde ñu ngi ci place bi nga xam ni fa la ñuy defee conférence de presse Rudiger a toog noonu Rudiger moom nga xam ni war naa jóg dem taxaw fa la nga xam ni fa la Real Madrid nekk affiche ya ne fa lépp ne fa mu yebbi ay kàddu kàddu yoo xam ni dina soxal Real Madrid soxal ko moom jóg na taxaw ngeen gis ko noonu ci li nga xam ni mooy coulisse yi ñu leen andil Antonio ci biir meilleur stade du monde meilleur club du monde taxaw na yebbi ay kàddu kàddu yu mu njëkk a yebbi nag ginnaaw ba nga xamee ni conférence de presse bi euh, jeex na wala bokk ña nga ca biir euh, bokk na ca man mii di Antonio Rudiger bëgg gi ma ñëw Real Madrid sama xol moo ma fi indi baneen bi Barcelone bëggoon na ma ba sori ci waaye sama agent la ma ko waxoon mooy Real Madrid wala dara loolu leer na ba mu toogee euh, meilleur président du monde jóg yebbi ay kàddu ni ki nga xam ne mooy Rudiger jàpp nañ ni li nga xam ne moom la am ci talent ak li muy def ci football am na solo am solo goo xam ni fii mu ñëw mooy këram te ñu ngi ñaan fii mu doxal ko fi ñu nit ñu ngi koy ñaanal jàmm ak féex moom Rodrigo